ñaana lu simple la Macky Sall wuti woon Touba te lii la wuti ay ñaana ba pare daal di siyaare comme ni nga xam ne moom la ko baaxoo def at mu jota yéen a kaay gi de la xibaar naa ñu ñi nga xam ne ñooy activiste yi nee ma ñoom Guy Marius Sagna tey jii danañu wàcc si mbedd mi li nga xam ne moo ko waral journal bi nee na ñaar fukki fan ñaar ci weeru mars bi nga xam ne moom la ñu génn ñoom Guy Marius Sagna bi ñuy amal seen mars ngir nag naqarlu li a dañuy wàcc si mbedd mi yéen a kaay gi de Le Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu député yi nga xam ne ñu bokk ci benn bokk yaakaar nee nañu nag député benn bu nekk dina andi lu toll ci juróomi téeméer ci pare loole nag ki nga xam ne mooy njiitul groupe parlementaire benn bokk yaakaar di ay miru ñi nga maanaam moo ko jiite ndaw ñi ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw responsable politique bi di àll si ñu gën ko xam ci bay àll di responsable politique à Touba nekk opérateur économique ndaw ñi ànd ak moom jigéen ñi nee nañu parrainage bi ci région de Diourbel bàyyi àll si la rek mën lijjanti ndax dina yomb lool ci moom ndax mooy responsable bi nga xam ne moo gën a jege askan wi ndaw ñi nekk ci ginnaawam ñoom nag nee nañu Bah Alla Sylla responsable politique APR bii di opérateur économique liggéeyulul Macky Sall ngir nag wut poste maanaam xaarul dara ci moom waaye nag ndaw ñi nee nañu jot na nag Macky Sall daal koy gersu am nag lu ko dénk ndax loolee njariñu réew mi la yërekaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu lu libération nee na waa section de recherche enquête bi nga xam ne ubbi woon nañ ko ci étudiante bi ñu faat ca diwaanu université Gaston Berger enquête ba jeex na ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñu njort ne seen loxo laale na ci defeere nañ leen ca kanamu procureur ay yéen kaay gi di bés bi nee na nag koor gi ma ngi commencé waaye nag li nga xam ne moom la dooree soo muy tuule du neex ci ñenn ñi ndax nag njëg yi jamono ji dafa yokk ba mara détaillé te nag rawatina li nga xam ne mooy diwlin gi ndax bëri na si sax ay produits yoo xam ne jamono ji dafa manqué ba mara détaillé yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na kuréel gii di Synpics ñoom nag ànduñu benn yoon ci nag ni nga xam ne moom moom la sénéra def waa Zik FM ak waa Sen TV waa Simpix ñoom nag nee nañu waa sénéra ni xam ne moom la ñu doxalee ak groupe des médias amul xajji amul seen lañ ko doxalee ak ñëpp yéen kaay gi di réew ko di jee xëy séq waxtaan ak waykat bi di Mariana di waykat boo xam ne ràññeeku na lool daan nay wax parcours musical am maanaam fi nga xam ne moom la jaar wax ne na groupe de rap bi di xat xola daan wax ne single mu njëkk kilifa di jàng ba pare bëgg ko boole ak musique bi waajur yu bare bari duñu ko mën a comprendre ra nee na nag ki nga xam ne mooy xumaan di rappeur boo xam ne ràññee nañ ko lool ci Sénégal nee na xumaan jàngal na ko lu bare bare ci lu jëm ci wàllu musique nee na nag musique bi ci réew mi di Sénégal ma ngi avancé bu baax a baax enquête yéene kaay nee na ñi nga xam ne ñooy xaru ci réew mi bëri na ndax weeru février ak léegi am na lu toll ci fukk ak benn ñoo xam ne xaru nañu yéene kaay gi di esata xëy nag wax ci tirage bi nga xam ne def nañ ko ci coupe du monde 2022 bi xewee ci Qatar journal bi nee na Sénégal poule bi mu nekk daan damay xaw a yemamaaye ndax Sénégal Hollande a Pays-Bas ak Équateur ak Qatar mi organiser mbir yi équipe yi la Sénégal bokkal poule yéene kaay gi ne na Sénégal nag mooy ubbi baal bi maanaam mooy ubbi mondial bi Sénégal yi ubbi xew yi digganteem ak Hollande du nekk match boo xam ne match bu yomb lay doon stade yéene kaay nee na amatina diggante Van Dijk mi nga xam ne mooy défenseur bu Hollande ak Sadio Mané mi nga xam ne mooy attaquant bu Sénégal yéene kaay gi du sunu